ibrahima ñaar saar ñaar lu jëm ci ibrahima ak abimelek ba loolu amee ibrahima dafa jóge fa mu nekkoon jublu àllu negew sanc diggante kades ak sur ba noppi gane ji ay fan ci dëkk ba ñu naa gerar ba ibrahima àggee nag wax na ne soxnaam saarata ab jigéenam la abimelek buuru daldi yónnee jël si saarata waaye genn guddi yàlla feeñu abimelek ci gént ne ko yow dee nga ba noppi ndax jigéen ji nga nangu soxnas jaambur la loolu fekkul abimelek dëkkoo saarata mu wax yàlla ne ko sama boroom mbaa doo boom réew mi ci mbir mu ñu doonul dara du góor gi dama waxoon ne kii jigéenam la du jigéen ji dama waxoon ne kooku càmmiñam la fexewuma dara lu ñaaw te di ko tey de yàlla ne ko ca gént ga waaw xam naa ne li nga def du sa teyeef moo tax man it mayuma la nga laal ko di ma tooñ léegi nag dellool góor gi soxnaam ab yonent la de te dina la ñaaral nga raw waaye soo ko deful na la biir ne dinga dee yàgg sa waa kër yépp noonu abimelek jóg suba teel woolu ay dagam yépp nettali leen loolu lépp ñu tiit lool gannaaw loolu abimelek woolu ibrahima ne ko li nga def nag ndax dama la tooñ ba nga yóbbe ma tooñ gu rëy nii man ak sama réew mi mépp lii nga ma def de waroo ko woon a def abimelek teg ca ne ko te li nga def sax lu la ci xiir ibrahima ne ko dali dama noon amul kenn ci réew mii ku ragal yàlla te dees na ma rey ndax sama soxna te moo na dëgg la sax sama jigéena ndaxte danoo bokk baay te bokk nu yaay ma jël ko te bés ba ma yàlla génnee sama kër baay may wëndeelu dama ko waxoon ne ko déglul li ngay def soo ma bëggee xettali mooy lii fépp fu nu dem na nga wax ne sa càmmiñ la ba mu waxee ba noppi abimelek jël ay xar ak i nag ak ay jaam yu góor ak yu jigéen jox ko ibrahima daldi ko delloo soxnaam saarata abimelek ne ko sama réew mépp a ngi noonu dëkkal fu la neex gannaaw loolu wax na saarata ne ko dégluma ma fii jox naa sa càmmiñ li mu junniy donji xaalis loolu dama ko def ngir seetal sa der ci kanam ñi nga dëkkal ñépp léegi nag ñépp xam nañu ne seet nga wecc fekk na aji sax ji um jigéeni waa kër abimelek ba kenn du ci am doom du soxnaam du ay jaamam te li ko waral di saarata soxna si Ibrahima Ibrahima nag ñaan yàlla yàlla def ñu wér ba mën a am doom. saar ñaar fukk ak benn. juddub isaaxa. gannaaw loolu aji sax ji yéwéne na saarata ni mu ko waxe woon defal ko li mu ko diggoon noonu saarata ëmb amal Ibrahima doom ju góor ci jamono ji ko yàlla waxoon te fekk góor gi di màggat Ibrahima tudde doomu Sarata jaak moom Isaaxa ba bés ba dellusee Ibrahima xarafal doomam Isaaxa ni ko ko yàlla digale woon ba Isaaxa di juddu booba Ibrahima ngi woon ci téeméeri atam Sarata ne yàllaa ka ma bégal may ree ànd ak ku yéeg nuy ree mu neeti ey ku noon Ibrahima sarata ngay nàmpal teewul ma jural ko góor te muy mag sarata jote na ak Ismaila ak ajara ba loolu amee doom ja màgg ba bés ba ñu ko feralee keroog Ibrahima def na bernde ju mag sarata nag gis doomu ajara misra jaak Ibrahima muy kokkalee sarata ne Ibrahima dàqal jaam bii mook doomam ndax doomu jaam bii du bokk ak sama doom ndono loolu saarata wax naqari ibrahima lool ndax li ismaila di doomam moom it waaye yàlla na ibrahima bu la dara naqari ci xale bu góor bii mook sa jaam bi defalal saarata li mu la wax rekk ndaxte sa askan ci isaaxa lay jaar doomu jaam bi it dinaa ci lawale aw xeet nag ndaxte yaa ko jur ca ëllëg sa Ibrahima jóg suba teel sàkk mburu booleeg mbuusu ndox jox ajara mu gàddu daldi ko dénk Ismaila yebal ko mu dem noonu muy wëndeelu ca màndigu Berseba ba ñu demee ba ndox ma jeex ajara daa bàyyi xale bu góor bi ci taatu ngarab su ndaw dox ba dànd ko lu tolloog saanu fit toog nag jàkkaarloog moom te naa ci xelam duma fekke mukk sama deewu doom naka la toog foofa janoog moom ne yëkkat jooy ba mu ko defee yàlla dégg baatu xale bu góor ba malaakam yàlla ma àddoo asamaan ne ajara ajara lan la bul ragal dara ndaxte yàlla dégg na sa baatu doom ci diggante bii mu toll demal yëkkati ko may ko loxo mu jóg dinaa def mu law ba doon xeet wu yaa ci kaw loolu yàlla muri ay bëtam mu gis ab sayaan daldi cay dem duy mbuusam ba mu fees jox ca doomam mu naan noonu yàlla ànd ak la muy màgg dëkk ca màndig ma di fittikat ca àllu paran la dëkkoon yaayam wutali ko soxna ca réewu misra ibrahima waatoon ak abimelek jamono yooyu abimelek àndoon na ak pikol kilifay xarekatam dem ci ibrahima ne ko gis naa ne yàlla ànd na ak yow di àntal li ngay def lépp léegi nag waatal ma fii ci yàlla ne dooma war mukk man ak samay doom ba ci samay sët waatal ma ne noonee ma rafetoo woon ak yow ni ngay rafetoo ak man maak waa réew mi nga dal Ibrahima ne ko waat naa ko ci kaw loolu Ibrahima tawat Abimelek teen bu surga yi Abimelek nangu woon ci moom aaki ko waaye Abimelek ne ko xawma ma ku la def jooju jëf de ndax yow waxoo ci dara guléet ma dégg ko tey noonu Ibrahima jël ay gàtt ak i nag may ko Abimelek ñu fasante kóllëre ñoom ñaar fekk na Ibrahima ber juróom ñaari xar yu jigéen Abimelek nag ne Ibrahima lu tax nga ber juróom ñaari xar yooyu Ibrahima ne ko jëlal xar yi ci sama loxo muy firnde ne man maa gas teen bii looloo tax ñu tudde teen boobu ba loolu di tekki teenu waat ga ndaxte fa lañu waatoo woon ñoom ñaar naka lañu fasante kóllëre ca berseba abimelek jóg ànd ak pikol kilifay xarekatam ñu ñibbi réewu filisti nag jëmbat na garabu daqaar foofa ca berseba tudd fa aji sax ji yàlla ji nekk ba faw ibrahima gane na réewu filistir lu yàgg saar ñaar fukk ñaar yàlla nattu na ibrahima gannaaw loolu am na bés yàlla di nattu ibrahima ne ko ibrahima mu ne ko naam yàlla ne ko nga la jëlal sa jenn doom jii di isaaxa muy ko bëgg nga dem ca réewu Morisa ca tund wa ma lay wax joxe ko fa mu nekk sarax suñuy lakk mu jeex Ibrahima nag teel a xëy takk mbaamam ànd ak ñaari surgaam ak doomam Isaaxa daldi xar matt mi muy lakke sarax bi ma nga jëm fa ko yàlla wax ca gannaaw ëllëg sa Ibrahima daa dawal bëtam seen béréb ba fu sore mu ne surga ya néeg leen fii mbaam mi taxaw man ak xale bi nu dem ba fële màggal yàlla te ñëw noonu Ibrahima jël matum sarax sañuy lakk yan ko doomam Isaaxa moom mu ŋàbb la muy taale ak paaka ba ci loxoom ñu ànd ñoom ñaar Isaaxa ne baayam Ibrahima baay mu ne ko naam doom sama Isaaxa ne ko safara saa ngi matt maa ngi waaye ana gàtt bi ñuy saraxal Ibrahima ne ko yàlla moom ci boppam dina dikk ak gàtt bi nuy def sarax doom ñu daldi ànd dem ñoom ñaar ba ñu àggee fa ko yàlla wax Ibrahima sàkk fa saraxalukaay teg ca matt ma yeew Isaaxa doomam teg ko ca kaw matt ma ca saraxalukaay ba Ibrahima nga tàllal loxoom ngëb paaka ba muy rendee doom ja waaye malaakam aji sax ja àddoo asamaan ne ko Ibrahima Ibrahima mu ne ko naam malaaka ma ne ko bu sa loxo laal xale bi bu ko def dara ndaxte léegi xam naa ne ragal nga yàlla ndax gàntaloo ma sa jenn doom ji naka la Ibrahima ne gees yem ci kuyu xar mu béjjën ya lonke ci as ngarab Ibrahima dem jël kuy ma rendi mu wuutu doom ja di sarax suñuy lakk noonu Ibrahima tudde béréb boobu Yahwe yire loolu di tekki aji sax ji dina dikk moo tax ñuy wax ba tey naan aji sax jaa ngay dikke ca tundam ci kaw loolu malaakam yàlla ma dellu àddoo asamaan ne Ibrahima déglul lii aji sax ci wax giñ naa ci man mii gannaaw yaa def lii te gàntalaloo ma sa jenn doom ji dinaa la barkeel yokk sa askan mu tolloog bi diiwu asamaan yem ak feppi suufu géej sa askan dina teg ay bañam tànk te waa àddina sépp dinañu taasu ci sa barke askan ndax déggal nga ma ba loolu wéyee Ibrahima wàññiku fekki surga ya ñu daldi ànd ñoom ñépp jëm Berseba ndax fa la Ibrahima dëkkoon askanu Noxoor gannaaw gi dañoo yégal Ibrahima ne ko milka kat am na ay doom moom it moom ak sa mag naxor uus lañu taawloo teg ca buus teg ca kemuwel mi baayu aram teg ca keset ak aso ak pildas ak yidlaf ak betuwel betuwelay baayu rebeka ñooñu ñooy juróom-ñetti doom yu góor yi milka am ak magu Ibrahima naxor ñaareelam réew ma am na ay doom yu góor ñooñoo di tebaa ak gaxam ak taxas ak maaka jënd na suuf ca kanaan sarata dund na ba am téeméeri at ak doora faatu ca kiriyaat arba mooy ebron ca réewu kanaan ibrahima nag dëj saarata jooy ko lool gannaaw loolu Ibrahima bàyyi fa néew ba dem ca eteen ña ne leen dama di doxandeem ci seen biir tey gan moo tax ma di leen ñaan ngeen sedd ma bàmmeel bu ma suul sama néew ba mu làqu ma kenn ci eteen ñi wax Ibrahima ne ko déglu rekk kilifa gi kilifa gu mag nga ci sunu biir dangay tànn ci sunuy bàmmeel bi la neex suul fa néew bi kenn ci nun du la tere nga suul sa néew ci bàmmeelam naka la Ibrahima dégg loolu daldi jóg su jootal waa réew ma maanaam eteen ña mu ne leen gannaaw nangu ngeen ma suul fi sama néew ba mu làqu ma déglu leen ma wax leen li ngeen may ñaanal Efron doomu Sowar dama bëgg mu bàyyee ma xuntim xeer mi ñuy wax Makpela te muy boroom mu ngi ci catu toolam na ma ko jaay lu mat njëgam sëkk dinaa ko jënd muy sama bàmmeel ci seen biir booba Efron a ngi teew ci biir Éten ñi Efron mi Éten nag wax ak Ibrahima ci kanam bokkam yi séq pénc mi ne ko déglul ma wax la kilifa gi fabal tool bi boole xuntim xeer mi ci nekk far maa la ko jox ci sama kanam kanami bokk jëlal denc fa sa néew ba mu ko defee Ibrahima su jootal waa réew ma daldi wax Efron ci seen kanam ne ko ngal la déglu ma dama lay jox njégu tool bi nga jël rekk ndax mu mën faa suul sama néew efron wax Ibrahima ne ko déglu ma kilifa gi suuf suy jar ñeenti téeméeri donji xaalis don du dara ci sama diggante ak yow te nga fa denc sa néew rek Ibrahima dégg li ko efron wax daldi waññal efron li mu xaalis bi mu wax ci kanam iteen yi maanaam ñeenti téeméeri donji xaalis yu dëppook nattu jaaykat ya noonu la Ibrahima jënde toolu Efron ba nekk ca Makpela te janook Mamre muy moomeelam dafa jënd tool ba bépp jëndaale xuntum xeer ma ca biir ak garab ya ca sax yépp ba fa tool ba yem mboolem ëttam ñi seqoon pénc ma seede nañu ne Ibrahima moo ko moom Ibrahima daldi suul soxnaam Saarata ca xuntim xeer ma ca biir toolu Makpela booba janook Mamre di Ebron léegi ca réewu Kanaan nii la ëtteen ña dogalale Ibrahima njaayum tool ba ak xunti ma ca nekk mu def ko bàmmeel saar ñaar fukk ak isaaxa jël na rebeka soxna Ibrahima guddoon na fan ba màggat lool te aji sax ci barkeel ko ci lépp mu am bés Ibrahima wax surgaam bi gën a yàgg ci këram tey saytu alalam jépp né ko dugalal sa loxo ci sama suufu lupp ma giñ la ci aji sax ji yàllay asamaan ak suuf ne doo jëlal sama doom soxna ci biir jigéeni waa Kanaan gi ma dëkk ci seen biir waaye dinga dem sama réew ma ma cosaanoo jëlal fa sama doom Isaaxa soxna surga su ndaw sa nanguwul a ànd ak man ci réew mii nag ndax kon dama war a yóbbu sa doom ba ca réew ma nga jóge waaye Ibrahima ne ko bu fa yóbbu sama doom mukk aji sax ji yàllay asamaan moom mi ma jële sama kër baay ak fa ma juddoo te wax ak man giñal ma ne ma dina jox sama askan réew mii moom ci boppam dina yebal malaakaam mu jiitu la foofa ngay jëlale sama doom soxna su la ndaw si bëggula topp kon wàccoo nga ak man waaye rik bul yóbbu sama doom foofa noonu surga ba dugal loxoom ca suufu lupp Ibrahima sangam ba daldi giñ ca loola ba loolu amee surga ba jële fukki giléem ca giléemi sangam dem yóbbaale li gën ci mboolem xeeti alalu sangam ma nga jëm réewu mesopotami ga dëkk ba muy jub dëkk ba daa yësal giléem ya fu dendakub seyaan waxtu ngoon fekk jigéen ñay génn di root si mu daldi ne yow aji sax ci sama yàllay sang Ibrahima ngalla nangul ma tey jii te laay biir sama sang Ibrahima maa ngi nii taxaw ci bëtu ndox mi jànqi dëkk bi di root si janq bu ma wax ne ko doo yenniku sa njaq may ma ma naan mu ne ma naanal ba noppi ma wëggal la say giléem nag kooka di ki nga jagleel sa jaam isaaxa noonu laay xame ne laaya nga biir sama sang laata muy ñaan ba noppi sax gis na rebeka gàddu njaxam di ñëw rebeka moomu di doomu betuwel te di sëtu milka ak naxor mi magu ibrahima ndaw su taaru la woon di ab jànq bu séyegul naka la wàcc ba ca sayaan ba duy njaqam yéegaat surga ba daw dajeek moom ne ko dooma may tuuti ci sa njaq li ma naan mu ne ko ankay ah sang bi daldi gaaw yenn ku njaq la may ko mu naan ba ko ndaw si mayee mu naan ba noppi dane ko xaaral ma wëggal la giléem yi ñu naan ba noppi noonu mu gaaw sotti njaq la ca mbalka ma dawaat rootali giléem yi ca seyaan ba waa ja ne ko jàkk ne tekk di seet ba xam ndax aji sax ji àntal na yoonam am déet ba giléem ya naanee ba sottal waa ji jël jaarob bakkan bu wurus bu tolloog juróom benni garaam ak ñaari lami wurus yu tollu ci téeméeri garaam takkal ko mu ne ko wax ma kan moo la jur ak itam ndax mën nanoo dal sa kër baay mu ne ko betuwele ma jur doomu naxor ak milka teg ca ne ko waaw waaw ñax maag ngooñ maa nga fa ne gàññ te manees na faa dal waa ji nag sujjóot sant aji sax ji daldi ne cant ñeel na aji sax ji sama yàllay sang Ibrahima moom mi mësula noppee laaye biir sama sang te mësu koo ñàkke war ma ma nit aji sax ji wommat na ma ba sama kër bokki sang janq bi nag daw dem nettali waa kër yaayam la xew lépp Rebeka amoon na càmmiñ lu tudd Laban laban daldi gaawtu génn fekki waaja ca seyaan ba booba gis na jaaro ba ak lam ya ca loxol jigéenam rebeka te dégg na jigéenam di nettali la ko waaja wax loolu tax mu dem ca waaja fekk ko ca giléeme ca seyaan ba mu ne ko yow mi aji sax ji barkeel ak silbo looy toog ci àll bi waajalal naa la ab dal te giléem yi am nañu fu ñu nekk noonu waaja daldi àgg ca kër ga ñu sippi giléem ya may leen ñax ak ngooñ may waaja ndox mu jàngu moom ak ñi mu àndal ba noppi ñu taajal ko lu mu lekk waaye mu ne déedéet du ma lekk mukk kay te waxuma li ma tax a jóg laban ne ko kon nag waxal noonu mu ne man surgab Ibrahima laa aji sax ji dafa barkeel sama sang lool ba muy boroom daraja may na ko jur gu gàtt ak gu gudd xaalis ak wurus ak ay surgo yu góor ak yu jigéen ak ay gileem ak i mbaam sama soxna sang saarata nag dem na ba màggat door a amal sama sang doom ju góor doomam jooju la jox li mu moom lépp sama sang nag loo ma ne bul jëlal mukk sama doom soxna ci biir jigéeni waa réewu kanaan gi ma dëkk waaye demal ca sama kër baay ca samay bokk nga jëlal fa sama doom soxna ma ne sama sang bu ndaw sa nanguwula ànd ak man nag mu ne ma aji sax ji ma topp dina yónni malaakaam mu ànd ak yow ba àntalal la sa yoon nga jëlal sama doom soxna ca sama kër baay ca sama biiri bokk boo demee ba ca samay bokk wàcc nga ndax bu ñu la mayul soxna wàccoo nga ak man ba ma agsee tey jii ca sayaan ba dama wax ne aji sax ji sama yàllay sang Ibrahima ndegam nar ngaa antal yoon wi may dox nga la may ma lii maa ngi taxaw ci sayaan bi janq bay ñëw root si ma ne ko dooma may tuuti ci sa njaq li ma naan mu ne ma naanal ba noppi ma wëggal la say gileem kooku na di soxna si aji sax ji jagleel sama doomu sang bala ma naan ba noppi rebeka ne jiméet gàddu njaqam wàcc ca sayaan ba di root ma ne ko may ma ma naan mu gaaw yenniku njaq li daldi ne ma naanal ba noppi ma wëggal la say giléem ma naan ba noppi mu wëggal ma giléem yi ma laaj ko ne ko kan moo la jur mu ne betuwel doomu naxor ak milka ca laa ko takkal jaaro bi ci bakkanam ak lam yi ci loxoom ba mu ko defee ma sujjootal aji sax ji sant aji sax ji sama yàllay sang Ibrahima ndax jubal na sama yoon ba ma jëlal doomam soxna ci bokkam léegi nag ndegam nar ngeen a rafetoo ak sama sang tey sàmm kóllëre xamal leen ma ko ba mu leer su ngeen ko narul it wax leen ma ma xam nu may def laban ak betuwel ne ko mbir moomu de ci aji sax ji la jóge te amuñu ci dara lu nuy wax rebeka ngoogu jëlal te dem muy sa soxna doomu sang ni la ko aji sax ji tegtale naka la surgab Ibrahima dégg yooyu kàddu daldi sujootal aji sax ji noonu surga a génne ay gànjare xaalis ak yu wurus booleek ay yére jox rebeka càmmiñ la ak yaay ja itam mu may leen alal ju takku ba loolu weesoo mu door a lekk daldi naan moom ak ñi mu àndal ñu fanaan fa keroog ba ñu yeewoo ca ëllëg sa surga ba ne bàyyi leen ma nag ma dellu ca sama sang waaye càmmiñal ndaw sa ak yaay ja daldi ne ko xanaa kay janq bi dina toogaat ak nun ab diir bopp maanaam fii ak si biir door a dem mu ne leen gannaaw aji sax ji àntal na sama yoon te ngeen ma bañ a yeexal te bàyyi ma rekk ma dellu ca sama sang ñu ne ko kon nag nanu woo jànq bi laaj ko moom ci boppam noonu ñu woo Rebeka ne ko ndax dangay ànd ak waa ji léegi mu ne waaw ba loolu amee càmmiñe bàyyi seen jigéen Rebeka moom ak surga bi ko yar te daan ko nàmpal ñu ànd ak surgab Ibrahima ak ñi ko topp ñu dem ña ngay ñaanal Rebeka mu barkeel te naan ay jigéen sunu giiral ba sos ay junniy junni te sa askan teg ay bañam tànk gannaaw loolu Rebeka ànd ak xale yu jigéen yiy jaamam ñu war ay gileem topp waaja noonu surga ba daldi dem yóbbu Rebeka loolu fekk na isaaxa dëkk ca àllu negew mu demoon nag teenu la xayroy ba ñibbisi genn ngoon isaaxa génn di doxantu ca àll ba naka la ne siget xool seen giléem yuy ñëw rebeka it ne siget gis isaaxa mu ne cëpp nag wàcc giléem ga daldi ne surga ba waajee ci àll biy ñëw jëm ci nun kana surga ba ne ko sama sang la de Rebeka dal jël muuraay ga muuroo noonu surga ba nettali Isaaxa li mu def lépp ba loolu wéyee Isaaxa yóbbu Rebeka ci xaymab yaayam Saarata muy soxnaam di ko mu bëgg te di ko muñe yaayam ndax fekk na mu faatu saar nelaw na Ibrahima jëlaat na soxna su tudd Ketura am ca Simran ak yoksan ak Medaan ak majan ak Yisbag ak Suwa Yoksaan jur Seba ak Dedaan askani Dedaan ñooy Asureen ñi Letuseen ñi ak Lewumeen ñi doomi majan di Efa ak Efer ak Anok ak Abida ak Elda ñooñu ñépp xeetu ketura lañu noonu Ibrahima donale Isaaxa lépp lu mu moom doom yu góor ya mu am ca soxna ya ca des mu may leen alal ca ba muy dund ba noppi yebal leen penku ñu sanc ca réewu penku ba sore doomam Isaaxa ati Ibrahima téeméer la ak juróom ñaar fukk ak juróom ba loolu weesoo la bakkanu Ibrahima rot mu nelaw fekki ay maamam gannaaw ba mu guddee fan ba màggat lool te barkeel isaaxa ak ismayla doomam yu góor ya rob ko ca xuntim xeer ma ca Makpela te jàkkaarloo ak Mamre ca toolu Efron doomu sawar eteen ba tool ba jëndoon ca eteen ña foofa lañu denc Ibrahima ak soxnaam Saarata gannaaw ba Ibrahima nelawee yàlla barkeel na doomam Isaaxa Isaaxa ngi dëkkoon ca wetu teenu laxay roy